asalaamaaleykum mbokk yi teel a gaawu juróom benn fan ci weeru safar mooy weeru digg gàmm ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dëppook ñetti fan ci weeru septembre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar juróom benn fan bokkul ci lim yu fàtte lim bu rafet la kon tey ci gaaw bi rafet na li ñu ci a taamu moom gaawu mooy ku ca watu li ñu ciy tere tere ak wattandiku mooy ku ca sangu wala ku ca fóot bis bi yow yàlla maa ngi musloo sa ngërëm ci saw mer sa jàmm ci sa mbugal maa ngi muslu ci yow mënuma jot saw tagg dëgg-dëgg na mu yellee ci sa jëmm allahumma audu bi ridaaka min saxatik wa bi muaafaatika min uqubatik wa audu bika minka laa axsi sanaana alayk anta kama asnayta ala nafsik allahumma audu bi ridaaka min saxatik wa bi muaafaatika min uqubatik wa audu bika minka la axsi sanaan alayka anta asnayta ala nafsik xaddisu bis bi day wax ci am solo bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ak bokk dañu ko aj ca aras maanaam bi ñu ko bindee ba noppi dañu ko aj ca aras muy wax naan moom ak bokk ci boppam muy wax naan képp ku ma jokk yàlla sunu boroom jokk ko képp ku ma dog yàlla sunu boroom dog ko xadis bi muslim moo ko nettali qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam arrahimu muallaqatun bil arsh taqul man wasalani wasalahu llah wa man qataani qataahu llah muslim waxtu julli yi suba waxtam dana tàbbi juróomi waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak benn tisbaar benn waxtu wu tegal fanweeri simili ak ñeent tàkkusaan ñeenti waxtu wu tegal fanweeri simili ak ñeent timis juróom-ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili